mbokk internautes yi seetaan 221 info dal leen ak jàmm mbër mi di Saalum Saalum moom nag ginnaaw buñ ko arrêté woon police yàggul dara daal nañ koy jàppaat li waral na ñu jàpp ko bii yoon mooy trafic de drogue ginnaaw buñ ko fekkee foofu ca këram aslem jàpp ko li waral ñu jàpp ko nag bu buñ sukkandikoo ci libération bi nga xam ni moom moo fësal information bi mi nga xam ne ni daal moom euh, dafa séqoon jaay ak jënd ak benn xale bu jigéen ginnaaw bu mu ñëwoon foofu ca kër lutteur bii di Saalum Saalum maam ginnaaw bu mu fa jëndee dorog jëggu toll ci vingt cinq mille maanaam juróomi junni ginnaaw bu mu ko jëndee nag moom xale bu jigéen bi ay atam toll ci ñaar fukki at ñeent dafa toog foofu ca kër Saalum Saalum ngir utiliser ko fa ginnaaw bu mu ko fa utiliser ba mu guddi lool bi mu paree Saalum Saalum xamal ko ni li mu utiliser ci dorog nekkatul vingt cinq mille waaye léegi quatre vingt mille de francs CFA la ginnaaw mu ko xamalee loolu nag ñuy jàppante ci loolu xale bu jigéen bi xamal ko ni yorul loolu Saalum Saalum daal di koy proposé li nga xamante ni mooy ñu def rapport ñoom ñaar dina ginnaaw bu xale bu jigéen bañee nag Saalum Saalum daal di koy forcé ngir am ak moom rapport lu toll ci ñaar yoon sax ba tey buñ sukkandikoo ci libération bi nga xam ni moo fësal information bi bi xale bu jigéen bi jógee ci loolu nag ci la daal di dem police porté plainte kii di Saalum Saalum ginnaaw loolu nag ci la police wàccee ca kër ga daal jàpp mbër mii di Saalum Saalum ba pare jàppale ko ak juróom-ñaar jigéen yoo xam ne ña nga fool ñu fàttali leen ni moom Saalum Saalum nag diggante 2014 ak léegi bii mooy ñeenti yoon muy dellu koy toppee trafic de drogue